mbir mi ni mu xam nga fii yoonu ndox la quoi bon donc les eaux de ruissellement bon fi la ñuy jaar bon jëm sampaate déversé wu au bas fond bon donc euh, à notre grande surprise euh, dañu yem ci benn euh, ay déchets yoo xam c'est des déchets venant présent de l'hôpital parce que il s'agit des tubes de prélèvement de sang et des poches bon alors ça nous euh, daf ñu jaaxal daal luy doy waar la bon et que zone bi xale yi fi la ñu il y a les terrains qui sont là bon y a bon aussitôt bi bi affaire bi feeñee bon xale yi ñu ngi jël tub bëgg ci alors que ñoom xamuñu nu mu bon ça constitue un danger. mais yi non jotuñu ko laal parce que dañu l'unité dañ parce que ñun bi ñu gisee xam ne bon lu am euh, lu doy waar la bon nous interpeller xale yi expliquer leen pour ñu bañ a jege voilà c'est la première fois mu fi am bon donc kooku je sais pas négligence ou quoi au niveau euh, des des des des au niveau de la santé bon mais en tout cas ñun suñu xam comme suñu xam-xam màccul ci l'eau. gis nañu loo xam ne luñ jaaxal la bon am nañu euh, suñu euh, yoon may nañu ñu wax ak ñi ñu war a waxal. xale yi bu fekkee ne dañ ciy fo bon euh, di fo ci tube yooyu ak poche de sang yooyu dugg ci kër yi bul xam lu ñuy indil parce que ñun xam ñu lu lu nekk ci mbir mi. fan suul. bon suul fii lañ ko suul ak côté quoi gas suul ko bon pour que bon buñ fi jógee xale yi bañ ko jege. bon je ne crois pas parce que gas quand même. comme on les a bon dit que on va tout faire pour interpeller les gens parce que c'est c'est c'est la première fois genre donc euh, bon on je bon peut-être parce que jogué parce que matériel laboratoire bon et que bon tubi da euh, Maladie, yi nga xamante ni prélèvement bien sûr alors plus les les les les les les sachets de sang là hein. bon alors ce que nous avons moo nous ñu interpeller bon pour que bon euh, vraiment euh, ce truc là soit vraiment euh, euh réglé quoi parce que bon euh, loolu daf ñu jaaxal hein. matériel médical bon nous avons lu ñu bon déchets médicaux yoyu dafa di lo xamni ne vraiment bon man maa ko fi so gis bon xam ni au niveau de l'hôpital dañu profiter ci taw wi xeyna kenn sànni ko bon mu ñew ba fi eau de ruissellement yi andi ko bi mu ñewé ba fi xérité ko diko xérité nak mu jaaxal ñu alors xalé yi ñom bon kay lañ ko def fab tu bëgg fab tu yi ak yooyu parce que tu bi bo gisee dafa rafet ci gis-gis bon ñu geestu gis ay bloc de sang alors au moment où l'on parle de Covid bon on parle euh, ñuy wax Covid waxi VIH euh, bon te loolu sur suñu zone bon je pense que li gens sages, sage bon ñu interpeller ñi nga xam ne ñi ñoom la ci seen xam-xam mais c'est possible parce que am na lu dem il ay li fiy jaar ci ndox dafa bari dafa bari mais loolu moo fi jot a ça veut dire que bon vous faites qu'on est hérité, wuñ ko duñ ko voilà.